jangeen jëf jangeen jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fees te ñu am yéen forom fàcce ko ay wuy yu gannaay bu fees del ñoom ñoo song biig makaanu parti Pastef ca Yoff donte la benn bakkan rotu ci waaye la fa nekkoon ci ay jumtukaay mu kilifa yi nga nga parti seen kàddu di koy ñaawlu teg ci daal di sàkk ci yoon mu def liggéeyam ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom lañ ci rotal ak xaajaloo am ci parti Pastef ci parti kon APR ci Saria nekk ca diwaanu Kédougou gannaaw ba nga xam ne ni benn weer kese moo des ci élection présidentielle yi di ñëw lenn ci militant ak responsable ya fa ne ñu yëkkati seen kaddu di ñaaru taxawaay seen coordonnateur mi ñu ne euh, dafa tëju ci nekk génn daal leen proposé ab bureau fictif ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Soli Bourama Dabo njàng amul ci lycée Ibou Diallo nekk fële ci diwaanu Sédhiou ndongo yi ñoo maas wàcc ci mbedd mi di ñaawlu melokaanu seen wan ak yile lu ci tolloog ñetti fan moom lañuy euh, ñu xëy crêté lank ne du ñu koy jàng muy lu ñu am yéene dàbbali su fekkente ne li ñuy tawat amuñu ci benn saafara ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg leer lañu tukkee ci kii di Lamine Bayo askan wa dëkkee ca Mexe Lamba ca Bambey ña ngay yëglu dañoo profito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 ci xibaar yi dañ koy ubbeek wàllu politique ay wuyu yu gànnaaw yi ba fees dell ñoom ñoo song biig makkaanu parti Pastef nekk fële ca yoof donte le nag benn bakkan rotu ci waaye la fa nekkoon ci ay jumtukaay muy ay ordinateur di ay téléphone portable di ay table télévision chaise ak yu lépp la ñuy yàq yaxet yóbbee kilifa yi ngànk parti bi yëkkat seen kàddu di ko ñaawlu teg ci tamit di sàkku ci yoon mu def liggéeyam El Hadji Malick Ndiaye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci téléphone soxna Ramatoulaye Sarr mën a gisee image yaa ngi daw ci internet ci réseaux sociaux yi rajo yaa ngi ci wax tamit wax démb ci ay boori ñaari waxtu yu teg eh, ñeent fukk juróom-ñett indilee ci guddi gi dañu wool nañu ah ay tàmbaabooy dugg nañu ci siège bi dañu euh, nëppoon seen ay kanam nag yor seen ay jaaré euh, ñu jàpp ne loolu du lu bees ndax Pastef lu toll ci un an ñu commencé gën a wane suñu doole ba léegi ay menaces ak ay euh, en tout cas ay attaques ñu ngi koy ñu ngi ngi koy jëmale si ñun yéen ngi fàttali ko bi ñu defee suñu seize septembre ba pare am na ay nit ñu wàccoon suñu siège bi Pastef Ziguinchor a kër yaay Ousmane Sonko di jéem a xoqatal gis ngeen tamit bi ñu defee suñu meeting bu mag ci Kër Massar euh, bi meeting bi di jeex suñu rey rey anam yu ñaaw suñu militant boobu jiite woon faamu Kër Massar yi di Mariama Sagna euh, gis ngeen tamit euh, ba donc yooyu yëpp mu nekk loo xamante ne nii du ñuy ñaawlu la démb bi ñuy inauguré suñu siège ca Yoff nga xam ne ay militant ñoo fay seen xaalis taxawal siège gis ngeen ay militant ñoo di yuuxu ak di filmer ci guddi gi bu lu mel ni amee nag dañuy jàpp ne euh, am na xëy na tiit boo xam ne tiitaange boo xam ne tax nañu tàqali toog seen sabab euh, dañuy jàpp ne réew mooy dafa am yoon donc du fi woote di fayu wala di def fi kenn xamul mais dañu déposé suñu plainte boole fi nag woo suñu militant sympathisant ñu continuer di garder la sérénité comme niñ ko yàgg defee saa yi si yu mel ni amee ndax yàgg nañu ci euh, yàgg nañ ci def yu mel ni mu wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di El Hadji Malick benn weer gën ngaa bëri moo des ci élection présidentielle yi di ñëw waaye seetlu gi moo di tëkku tëkkuwante gi ñu nemmeeku fan yi mu dox ci diggante nguur gi ak ku gi ba tax ñu bari njort ne lii buñ ci jëlu ay matukaay boobu moyul musiba dina am yóbbee askan wi yëkkati seen kàddu di woowee politique yi ci ak dal te xam na njëriñ loo fekkee Khady Diéry Fall Pape Gora Gueye li lee di jàmmaarloo ak itam it ay taxaw ak i dox ñaxtu di gën di bëri ci dëkk bi li nga xamante ne bii nag moo di ay violence ni ki ay jàmmaarloo jógee ci côté ku jéegeek côté nguur gi doon na lu ñuy nemmeeku ci fan yi ñu nekk étudiant bi le nag di gis ni ñi nga xamante ne bii ñooy ndaw yi waratuñu nangu ñu leen di yóbbu ci le manifestations. c'est purement politique c'est purement politique. bu wax ñu jàppale tout ça. jeunes yi laay message pour que ñoom tamit ñu ñu nekk des jeunes matures des élites de demain euh, c'est c'est à l'instant qu'on se prépare et c'est à l'instant qu'on se vise ce que ce que nous nous, nous voulons faire de demain il faut que ñun tamit ñu maturer si si si loolu pour que pour que demee tamit kenn du ñuy jàmm daal. borom kër gi le nag moom it di gis lu nu mel moom ile mu di jàpp ne xeex ak i jàmmaarloo doonul anam bi gën ngir mën a ñaxtu say ay problème du ma nangu sama benn njaboot dem ci manifestation tant que ña nga xam ne ñi wóolu nañ leen yaakaar leen ne ñoom la jóg pour defar askan wi ñoom ñoo say jiitu ba pare suñ ci jiitoo ñu topp ci mais suñ ci jiituwul ñu toog ni ñoom ndax man kenn du ne ma demal yàq man ma ñu jàpp ma ëllëg si di ma di ma toroxal du ma ko def. citoyen bi leen nag moom di gis ne. jàpp yi ñuy faral di def. day am xaj ak seen. ñi ñu war a jàpp duñ leen jàpp mais ñi nga xam ne nii dañ fi nekk nekkal fi askan wi nekkal fi réew mi ñooñu rek la ñuy jàpp te vraiment loolu man naqarul naa ko trop parce que boo seetloo temps yi yëpp ay vidéo yi ñu ngi daw di circuler ci internet bi en plein jour ah ay nit xam di agressé di nangu alali jàmbur vidéo yaa ngi daw on peut les reconnaître tu vois mën nañ dem fekk leen fi ñu nekk jàpp leen mais li leen gën a intéressé gën leen a soxal mooy politique opposition bi. manifestation woote jàmmaarloo xeex ak it toj li leen nag jur ci fan yu ñu nekk ay jàpp yu ñuy amal jëmale ko ci yenn nag jeunes opposants yi li leen nag tax ba ñenn ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci nguur gi fas yéene recruter ay nit yu bëri ngir mën a dakkal lu ni mel. soxna maam Jéri Fall ñu ngi lay sant di lay gërëm maître Aline Cissé yi xam ne ni. Euh, lu jëm nag ci manifeste yi nga xam moom la ñuy amal jamono ji euh, am na ci loo xam ne ni yoon wax na ko euh, ba tax mu jàpp ne même sax bu fekkente ne am nga yéene def rek manifester bu baax sax nguur gi mën na ca jaare teg la loxo moom maître Aliou Cissé moo yëkkati kàddu yu ni mel du ñàkk laataa ñaa laataa ñoo jeexal xibaar yi dañ ci dellu siwaat ak moom dogal bi nga xam ne Serigne Mbaye Thiam mi jëwriñ ju ñu dénk wàllu njàng mi jël na ko daal di tere jàngalekat yi ñu dugal seen loxo ci politique bi rawatina ci campagne électorale bi ñuy dëgmal doon na lu metti Abdou Fati muy njiital Sels authentique moom dafa gis ne Serigne mbay Thiam xamul fu muy teg tànkam ndax amul benn sart ci réew mi buy tere ab jàngalekat mu def politique du Fati ñu teewlu ko ci micro Najib Sagna. waaw loolu moom wax bu yàqu la parce que ñun enseignants yi ñu soo gisee ci chapelle politique yëpp opposition comme pouvoir ay jàngalekat kese lañu jàngalekat yi nag ñun jàng nañu quand même xam nañu suñuy droit ak suñuy devoir ku si nekk xam na ni. loo xam ne sooy dem politique da bind permission wala ñu am lu ñu la accordé soo ko deful naturellement loi day dal sa kaw loolu moom vraiment ay waxu euh, wax yoo xam ne mënuñu ko jàpp ñun li ñuy wax jàngalekat yi rek mooy na ñëpp euh, farlu na ñëpp également wàccoog euh, seen i droit ak seen i devoir suñ ko defee li si des ku mu neex na à tes temps perdu nga def lu la neex ñoom sax soo gisee pouvoir bi genn wàll yëpp ay jàngalekat la ñu donc vraiment mënuñu tere benn jàngalekat wàcc si langue politique bi mënuñu tere benn jàngalekat def politique à ses heures perdues jàngalekat yi dofu ñu jinne jàppul leen ay loi ak règlement moo leen tënk xam nañu kañ lañu war a def politique ak kañ lañu ko war a deful en d'autres termes ni ñu koy waxee si tubaab du ñu mélanger serviette ak torchon ñii ay candidat lañu sampoon seen bi ñu bari jàpp ne pertement la leen jural ndax xaalis bu takk bi ñu ci bi ñu ci euh, jot a dugal waaye ku ci mel ni Babacar Camara muy njiital coalition fippu ak Abdou Wahab Benzeloun muy njiital coalition Wahab président ñoom di ñoo gis ne amuñu lenn luñ ci rëccu bu doon ne lu ñuy defaat la bon suba ñu defaat ko ndax Sénégal jaral na leen ko Isatine Pape Gora Gueye reportage. tudd ko fi daal pour man jaru ko fi mais li ma mën a wax daal mooy que parrainage bi dafa mel ni nga doon dem campagne. ci moyen ci ci énergie ñëpp toog ku ne indi li nga am ci moyen ci temps ci énergie ñëpp toog ku ne indi li nga am. lii yëpp terewul seeni candidature ñu daal di koy lànk koppar yu takku ak doole ji ñu defoon ngir mën a dagaan baatu askan wi ndax dafa naax saay bu ñu sukkandikoo ci Boubacar Camara njiital coalition fippu ngeen xeex ko mu nekk une cause noble pour le pays loolu dëkk Sénégal jar na donc loolu mënul nekk perte waaye li gën a tax mënul nekk perte mooy génn moo jaarul yoon. génn bi ki ko def dafa bëgg am rek deuxième mandat ne coûte que coûte dina fi toog moo tax ñun duñ ko xalaat ci wàllu perte ak yooyu dañuy xalaat ne démocratie avancé woon na Sénégal ba ñëpp xalaat ne kenn mënatu fi sàcc élection ñu dem ba fi mu nekk nii ñu changé dispositif bi yëpp ba kenn wóolootul si Abdou Wahab Bengeloun moom sax France la jóge ngir mën a ñëw bokk ci jongante yi waaye amul benn rëccu ginnaaw bu ñu lànkee ab candidature ci ah, mënul wax perte ak gagné kuy wax perte ak gagné mooy nga ubbi benn société nga commencé di xaaral ma jéem a gagné fii à gauche à droite. donc sama dëkk tey euh, jaral na ma euh, lu loolu lan moo tax ma tey li ma nii ku ma jàngal ku ma yar hôpital ma feebaree mu faj ma sama dëkk la tey su ma demee ba yàlla may ma tey ma am wërsëg bii nii. bu fekkoon amoon naa beneen moyen boo xam ne mën naa si jàppale sénégalais yépp ma jéem ko mais dañ dem ba xam ne ko fii lépp li ñu nekk di kaas di wax ak li ñu bëgg yépp loolu si vote lañ koy mën a amee ñu andi suñu candidature teg. seen dugg bu njëkk ci politique ñu daal di koy lajj ginnaaw bu ñu lànkee seeni candidature Boubacar kamara ak Abdou Wahab Bengeloun ñu fa yéenee des ci langu politique gi dàquñu benn lëkkaloo waaye nag daam fu ñu koy jaaralee. te kay taxaw naan ma mi ngi sànni xaalis ma la kon nangul nga ma ni sama xaalis laa sànni. sama xaalis nga wax mais ñooy sànni sa xaalis di ko pasar pasare kaasuloo ko. maintenant mun na am circonstance yoo xam ne yi bu amee effectivement force bi nga am mun nga ko jël dénk ko kenn pour koo xam ne kii ci même cause bi nga doon def la def pour fexe ba changement am. dem beeg dikk bi seen wàllum jokkoo dagaan baatu askan wi lépp nekk koppar yu takku yoo xam ne génn nañu ko ngir nekkoon mbër ci jongante yi ñu dëgmal waaye amuñu lenn luñ ci réccu ginnaaw bu conseil constitutionnel lankee seeni candidature ñoom ñii naroon na nekk ay candidat nag faaw ñu xelaat bu baax ngir xool wan yoon la ñuy jël. jërëjëf Issa Tine ñu ngi lay sant la gërëm mbokk yi politique la ñuy wax ñu desandi ci ak xaajalo am ci parti APR ca Saraya nekk ci diwaanu Kédougou gannaaw ba nga xam ne ni eh, benn weer kese moo des ci élection présidentielle yi di ñëw lenn ci militant ak responsable ya fa ne ñu seen kàddu di ñaaru taxawaay seen coordonnateur bii di Sadio Dansokho mi ñu ne euh, dafa tëju ci nekk génn daal di leen proposé ab bureau boo xam ne bureau euh, bureau fictif la euh, ay def ci ay nit daal ñoo xam ne ni kenn xamu leen kenn ràññewu leen ci seen coalition bi defoon na ko ci élection législative yi mu jàll waaye élection yi moom du demee noonu njiital réew mi Macky Sall la ñu ci moom mu jël décision daal di koy jëlee ci bopp Sariya defu ko. dana jafee lool ci moom mu dégg wiw fa fekkee Saraya Saraya ñu jëm fekk fa soli Birama Dabo saxaar baa ngi xëy diggante le président du conseil départemental bu Saraya ak it militant yi Benno Bokk Yaakaar lu ko waral moo di daal militant yi bokk Mamadou Sissoko maire bu Sabodala nee nañu daal kii di Sadio Dansokho coordonnateur départemental lu ko neex lay doxal parti bi ndax daf leen présenté benn bureau fictif bu comité électoral départemental te ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg. département de Saraya képp koo xam ne ni bokk nga Benno Bokk Yaakaar am nga lu la métti parce que ku ñu jox coordination bi koo xam ne nii mooy Sadio Dansokho dafa toog benn place Dakar la toog jël ay nitam bind seen tur dugal ko ñun nit nit ñi jël noonu contre ñu leen ñun lu wax lépp lu ñu war a mënta def ci biir parti bi dañu war a toog autour d'une table. ñu waxtaan si xool li si gën pour parti bi ñu ñu ànd def ko. incha allahu loolu du am fii du fi am tey du fi am ëllëg incha allah dinañ teg dinañ taxaw dinañ def suñu kàntalaay keptal pour en tout cas décision boobu bañ am. képp koo si laaj tey tey tey dina la ne décision bi mu jël nii jël ay ni teg leen bokkuñu si yëguñu ko xamuñu ko. am Amidou Guité Diallo di yokk ne daal boo gisee nag ñu ñàkk élection législative yi passé c'est parce que Sadio dafa yennu lu mu attanul. bu doon mbirum Sadio defoon na lu lu ëpp lii mais kenn waxu ci dara. parce que si lu mu kii woon si kawam la xoppoon moo nekkoon candidat mu def ay partisans affaire bi euh, demul fenn. réew Macky Sall dès le premier tour nee nañu daal du dara ci ñoom fii ci département bu Saraya waaye lu ñu bëgg a moo di daal foofu ñu dégager. Sadio même fi mu nekk fu ñu dëkk sax amu fa nit. kooku su jiitee su jiitee coalition bi xam nga ñu on va droit au mur. lors de ces élections de de ces parrainages là amuñu benn résultat defuñu fa benn résultat képp koo xam ne ni responsable nga si biir parti bi. mooy que ki fi nekk te mu nekk Sadio Dansokho liggéeyul pour parti bi te xam naa ni ñoom sax xam nañ ko maire Sabodala la moo xaarul kenn jël bâton de pèlerin dugg si dëkk ak dëkkaat yi on n'a qu'à l'enlever comme le coordonnateur du parti au sein de Saraya al fu mu toll yàkkamtewul de retour de Saraya Souli Brahma Dabo Abla Chimère Fall pour la radio télévision Walfadjri jaajëf Soly Brahma Dabo ñu ngi lay sant di la gërëm fële ca Tëngéej ci terre bi ba tey euh, mu ngi jur a dox ci diggante askan wi ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di kilifa ya fa ne ñoom askan wi ba fii daal dañ jàpp ne euh, terre bi daf leen a jural ay musiba waaye ñi nga xam ne ay responsable lañu fare ci parti bii di APR gisee wuñ ko noonu ñoom dañuy gis ne terre bi njëriñ kese la ci askan wi nga xam ne ni ñoom ñoo dëkkee foofee ca diwaanu Tëngéej ci yoon am ndaje nag mu yaatu moom la ñuy woote woon Nazib Sagna lañ fa yebaloon benn semaine a ngi nii buy lancé TER fii si Tëngëj waaye nag ba léegi mën menaces yaa ngi am suñu xoolee ndaw yi ñu ngi laaj ñoom ñu mën a am ay passerelle si Rufisque waaye nag waa APR nag loolu tax na bi ñu jóg pour mën a waxtaan ak ndaw yi pour meeting bu ñu def si Rufisque Nord si mbokk ñu wax ni Kër Jaraaf waa APR nag dañ jëkk taxaw waxal ndaw yi ñuy ñu wàññi lu ñuy def. xam nga TER bi warul jarul woon sax débat parce que li wóor ba wóor rek na woon du am. wala mënul nekk mais on a vu que ne nekk na train bi départ na Dakar dem na ba Diamniadio wàññeekuwaat delluwaat li si des ay problème mu passerelle ay problème mu pont ay problème mu finition la te li wóor ba wóor mooy li defar loolu je crois que ne finition yi moom jarul sax di si am xel ñaar et puis train bi nañ d'accord ne ñun ñëpp suñu njariñ la njariñu Sénégal yëpp la waxuma sax ay Rufisque ak ay Diamniadio affaire mais njariñu Sénégal yëpp la ndaw yooyu dañ leen doon pousse ay nit ñoo nekkoon seen ginnaaw di leen pousse saboté inauguration bi mais ñoom ndaw loolu dem nañ ba xam ne lii ñu doon def sa erreur la parce que lii président di def njariñu Sénégal yëpp la njariñu Rufisque yëpp la ku gis gaaru Rufisque bi actuellement xar kanam bi mu am mais déjà rek bu ñuy wax li gën a rafet ci Rufisque actuellement gaar bi si la bokk kon donc loolu suñu njariñ la ñun waa Tëngéej na ndaw yi delloo seen xel am na loo xam ne ku la siy poussé bul ko accepté parce que boo demee doo fa fekk si biir mitim nekk waa APR nag dañ uti njiit bu bees muy Ousmane Ndiaye koo xam ne nii benn parti la jegoon muy parti euh, bés si ñàkk ñoo fii si APR pour ñoom nag kooku fu mu nekk nii nag mooy njiitu fii si APR yi si Rufisque Nord ñu déglu leen. muy bés boo xam ne kontaan naa trop di ñaan yàlla yàlla def jàmm élection yi ñu jëm ñu dem si jàmm dem si dal. te xam ne que le meilleur gagne li wóor boo wóor mooy yàlla ki mu war a fal fal na ko ba pare te on a que ne le président de la république lii mu def nii actuellement si réew mi du lu ñuy naataab naataab naataab lay. signal bu foor la waa PER jox euh, ndaw yi nekk fii ci ak ñëpp xam na ni dañu contre projet euh, TER fii ci Rufisque nay Sénégal télévision Fatick. jaajëf Nazib Sagna ñu ngi lay sant di la gërëm boo amee nag ñu kontaanul benn yoon ci saako farine bi dëkk yokku saa su ne. ñoom ñoo di borom boulangerie yi bu teyee ñu ne leen saako bi mu ngi jar ñetti junni ak ñaari téeméer bu subaa ñu yokk ko yóbbu ko ba ci ñetti junni ak juróom-benn téeméer te njëgum mburu bi moom daanaka du yokku jënd fukk jaayee juróom moom la ñuy wax ne mëntuñu ko nguur gi lañuy ñuy sàkku mu jël dogal euh, mu dugal ci loxoom euh, wa illa fanweeri fan ci weeru sang wi ñu wone seen bopp Bada Gassama moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo fariñ bi dafa am prix boo nga xay ni moom lañ fixé ci ci liñ wax mooy diggante dix-huit mille ak seize mille te fariñ bi diggante dix-huit mille ak seize mille bu ñu ko jaayee fariñ doon mënuñu koo jënd jaayee mburu cent cinquante li nga xam ni moom lañ mën a jaayee mburu buñ bu ngeen gisee mu nekk ci jàmm muy année 2018 bi fekk na farine bi ñu ngi ko doon jaayee diggante treize mille ak treize mille cinq cent moom la ñu doon jaayee farine bi ñu xëy nag ba des mois de le trente le vingt huit décembre usine yëpp àndandoo nii seen farine ñu ngi ko jaay léegi seize mille deux cent seize mille sept cent te loolu ñu ko duggee duñ ci génn parce que 2017 biñ ko defee bu jënd boulangerie yëpp xaaj bi yu ci bari tëj ñeneen ñi ci des am ay problème yoo xay ni dañoo am ak usine farine ji yore leen bor yu mënu fay ñi am ay bor ak banque loolu nag li nu dalan duñ toogaat ba mu dal état bi nag ñoo ngi koy tàllal loxo pour waxtaan ak moom ci luñ mën a luñ mën a déggoo bu fekkee nag loolu amul ñu ngi préparé le 30 incha allah fas nañ yéene foofu bépp boulangerie nekk dina takk morceau bu xong naqaru li nga xam ne moo xew ak i liggéeykatam le 31 nag région yi yëpp parce que yéene nañoo daje dakaar la ñuy daje Dakar nag la ñuy def nag foofu lañ koy décider wax ko wala ñoo yegg ci loolu nag bëgg nañ état bi diglu nu nangoo toog noonu nu waxtaan ak noonu nga xay ni ici yi duñ gaañu état dina jot ay taxam ñun ñu yore boulangerie suñu boulangerie dinañ mën a fay suñu ouvrier liggéey génn njàng amul ca lycée Ibou jàlloo ca Sédhiou ndongo ya ñoo maase wàcc ci mbedd mi di ñaawlu melokaanu seen wan ak yile lu ci tolloog ñetti fan moom la ñu créé lànk nañ ko duñ ko jàngi muy lu ñuy xal di laabali ba flekk nguur gi di nangoo uh, saafara seen tawat yile dañuy dem ci Sédhiou fekk fa Lamine Bayou bu Sédhiou bu ñu ne lycée Ibou Diallo ndaw bu fa nekk ñoo banque seen loxo bañ a dem jàngi daf ko ñaari fan boole ci beneen fan beneen fan boobu jot nañu génnee ñëpp ñi nga xamante ñu ngi si daaray kaw fii ci région e ci commune Sédhiou li ko waral mooy ni que ñu ne seen toilette yi daal nu mu mel dafa doy waa tey fu ñu toll nii suñu soxlaa seen bopp dañuy génn dem ci kër jàmbur yi. ñu fexe ba defar waxoon nañu ci ko defar parce que douche yi nu mu ñaaw élèves yi dañuy obligé génn ba yu nekk ci alentour yi pour def foofu seen besoin biiram suy daw nu muy def biir bi suy daw tey ñun majorité journée bi ci école bi la ñuy toog ñu nekk ci école boo xam ne amul douche yu normal loolu duñ ko mën accepté moo tax ñu génn tey ji wax ak IA après ñu dem conseil départemental moom mi nga xam ne moo war defar douche voilà si nag wax ak IA après ñu dem conseil départemental moom mi nga xam ne moo war defar douche voilà si nag c'est à cause de euh, suñu toilette moo baaxul suñu douche yi moo baaxul donc de ce fait dañoo def grève pour euh, suñu Sédhiou waa état bi aussi notre établissement pour gars yi gis ñu xam ne aussi que nous ne sommes pas à l'aise loolu nekk na mbëbët boo xamante ne buñ doon tàmbale dugg ubbite école bi ki nga xamante ne moo jiite lycée bi di proviseur maane jotoon na ko wax ñi nga xam ñoo ŋànk nguur gi ak jàngale jàngu jàngukaay amoon na ay wax yoo xam ne jotoon nañ ko ci wax waaye ba léegi gisuñ ci dara Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Bayo. askan wa dëkkee fële ca Mexel Lambaay ca Bambey ña ngay yëglu ñoom itam. dañoo profité ci tànk nemmeeku yi fa sëriñ Abo Mbacke muy xalifa sëriñ Mouhamadou Fadal doon amal ngir fesal mboolem jafe-jafe yi nga xam ni seen dëkk bi mu ngi koy jànkonteel lu ci demee ni ñàkkum yoon ñàkkum courant waaye tamit soxla nañu ku leen dimbali ci wàllu jiw ndax ay béykat ñoo fa dëkkee dañuy dem ca Mexal Lambaay fekk fa Mamadou Makhtar Sarr. ñàkkum yoon séddaleem courant mi ak paj mi sooxee ñàkkum kaaraange li ni mel moo di jooyu xolu askan wa dëkkee ca Mexel Lambaay di gox bu nekkee ci commune bu làmbaay ci département bu Bambey. jafe-jafe yi ni mel ñu ngi ko fësal ci jamono yi Serigne aboo Mbacke xalifa Cheikh Mouhamadou Fadal ñëwee ci gox bi doon fa amal ak ngan. li ñu war a am lépp mëtewut waaye am na fi yàlla def yoon a ngi nii xeer yu xonq la ginnaaw dëkk bi yoon a nga fa xeer yu xonq la ñuulal tali bi ndax nii mu mel dañuy wëri ay ndox di ko roose hmm. te bu poussière bi amee day sonal nit ñu jëlee ci ay feebar. waaye nag day bu nu ko mën mu ñuul Bambey ba Lambaay wala ndàngal ma ba Lambaay Bambey ba Lambaay jaar mi xëy moom moo nu gënal. courant bi itam am na lu fu nekk. Hmm. xam naa macha allah góor lañ ci. waaye am na ñoo xam ne yëggagul ci ñoom. Hmm. te dëkk bi dëkk bu mag la bu ñu sañee ñu dimbali mu hmm. loolu foofu ñu yegg ñu gën koo renforcer. fi mu yëggagul ñu jàllale ko. sécurité moom. du doy benn yoon. waaye nag ñu ngi ciy sàkku. li akas su suñu ko mënee dolli ñu dolli na ko ndax fi mu ne jur gi kenn ku ne la nga yeew sax ci sa biir kër lañ koy fekk jël ko te doom kenn ku ko wal ku soxla ko ne da ngaa war a ñaan ñoo ngi ñaan état ak maire yi maire bi ñu jàppale ci li nga xam ne moo fi manqué te mu war leen ñu jàppale nu ci ngir yàlla. askanu Mexel Lambaay nga xam ne ñu ci bari ci ñoom ay baykat lañ tàll nañ loxo nguuru Sénégal ngir mu jàppale leen ci ay jiwu ak ay jumtuwaay yu ñu mën a liggéeyee suuf si. waaye dañoo dëkk ci ak joor mhm. suñu sañal it état bi dina dimbali ci jiw mhm. dellu ginnaaw bi dina dolli mhm. ndax dimbali moom boo boo ne dimbali ma da la sa defal dina dolliwu jiw dina dollu engrais bay noor bi moom ñu ngi ci yëngutu ministère agriculture bi nga xam ne moo mbay mi mu ñi nga xamee ne ñoo ko commencé ñu accompagner leen ba ñu gën a mën a réussir ci mbayum noor bi ci fàttali nag mexe làmbaay gii fi la Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane gane àdduna di góor yàlla bu mag taalibe sëriñ Touba Xaadimu Rasuul bu def lu bari ci yoonu murit ak yoonu lislaam at mu jot nag ñu seetle xalifa cheikh Mouhamadou Fadal di sëriñ Abo day ñëw amal fi ngan saafonteeg taalibe yi ak xalifa cheikh Babacar Ndiaye Cargaan di cheikh Mouhamadou Fadal Ndiaye Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jërëjëf Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi lay sant la gërëm kaneen xaar ngir ñëpp xamul benn dëkk la boo xam ne nii ma nga nekkee ci arrondissement bu Koki nekk ci biir région bu Louga. ñooy fàttaliku boole ko di sargal ëllëg ci aljuma ji sëriñ di Maxtaar Mbàkke mi doonoon juróom-ñaareelu xalifa maam borom Touba. bi nag di juróom bi di juróom-ñeenteel bi la yoon ñu koy amal ci njiital sëriñ Ahma Mbàkke ndaje nag mi ñu doon amal ngir waajal xew-xew yi occasion la woon ci kilifa yi ñu daal di tàll loxo nguur gi ngir mu gestu kaneen xaar fa la ñu jëm fekk fa Omar Kayre lépp yemb na ngir ñu mën a amal juróom-ñeenteelu édition journée bi ñu jagleel Serigne di maxtar Mbacke ñu jàpp ko nag ci àjjuma ji yamook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier ci kaneen xar di dëkk boo xamante ni mi ngi nekk ci commune bu Koki xew-xew boobu nag ki ko door di Serigne Axma Mbacke ngir delloo njukkal maamam ji nekkoon tamit juróom-ñaareelu xalifu Serigne Touba di nitu yàlla goo xamante ni dafa participer lu bari ci tarbiya Serigne Axma Mbacke ki ko xam ne di Serigne Papa Fall Marabu. boo gisee cant gi ñu tuddee ko sant sëñ Sidi dafa nekkoon diggante sëriñ Axma ak sëñ Sidi Mokhtar Mbacke mhm. nekkoon tamit diggante sëñ Moustapha ak sëñ Sidi sa jamono ja xam ne si ne sëñ sëñ Sidi Mokhtar ma nga woon Daarul Muxti loolee dafay yàgg uh-huh. sëñ Sidi Mokhtar man toog naa ak sëñ max mu daan Mbacke mu ne sëñ Touba dugg na sama jëmm ji ba jeex ci tàkk kon ku ku mu jox ndigal sëñ Touba jox ndigal te wax na ne sëriñ Touba tamit jaaroon na fii ci wetu keneen xar kon su ko fi yebalaatee rek am na lu mu namm sëñ Touba moom fu mu jaar du sëñ tubaa bu fa jaaree ba jàll dan fay yebal koo xam ne si ne loolee pepp moomee fa desoon moom lay ñëw bees dëbb ko lay ko soq ko jox ko njaboot googe ñu xéewloo ko. ba mu ñëwee sanc ci kaneen xaar ba léegi ci ndigalal maamam Serigne Sidi Maktar Mbacke Serigne Axma Mbacke jublu nag ci mbay ak sàmm réunion bi ñu doon amal ci këram gi Sele Ndiaye di conseil spécial ca primature doon ko teewee daat jaare nag di woo gouvernement bi ngir ñu ñëw jàppale nitu diine kii nga xam ne mi ngi participer bu baax ngir nu ñu wàññee chomage bi ci gox bi. bu dee ci tool yi gis ngeen mi ngi bay fii ah li am. yóbbu ko fenn mi ngi ko teg fii di ko bokk ak nit ñi mi ngi yore ak jur jur gi yéen ñëpp gis ngeen ko kenn ku ci nekk eh, li cay liggéey lépp di di créer fii am na fi ñi ngi jaay soow ñi ngi jaay meew te mi ngi dem fépp di dem ba Touba di dem ba Louga di dem fépp kon loolu bu ñu ko amee ci suñu gox bi dañuy ñaan yàlla mu yokk ah li may wax nag mooy di ñaan ci gouvernement bi ci autorités yi ci ñëpp ñu jàppale ko tracteurs yi war nañ ko cee jox war nañ koo jox suuf ndax boo liggéeyee nun rek ñoo cee jariñu Serigne Moustapha Mbacke di xalif bu guy mbind di doom ci Serigne Sidi Maxtaar Mbacke ñoo ngi koy xaar ci xew-xew boobu ci kaneen xar mu di nag bés boo xamante ni dañu fa teew ay junney junney taalibe ñu yëngu ci wàllu politique ci sport ak sax jëm ci bis bi Oumar Kayre Louga Walfadjri. mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbisee ngeen ci ñaar lu xaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëye maître Abdoulaye Wade yéen a kaab di ñu xibaar ne la mu sumboon yépp ci géew bi rawatina ngir waajal élection présidentielle 2019 lépp ñàkk na ko moom mi waxoon ne élection présidentielle 2019 du am fekk Karim Wade bokk ci tey Karim Wade bokk ci juróomi candidat conseil constitutionnel tànn ba ko ñaareel moom mi waxoon ne PDS du mos a boycotté yi te élection du am ci réew mi ba ko ñetteel maître Abdoulaye na ñaar ba ñett ay kàngam yu bari ci PDS mujjee nañu ba Abdoulaye Wade wutali nguuruk Macky Sall Walf Quotidien xibaar ne neexul ba neexul waaye maître Abdoulaye Wade xeex gamu sumboon wéet na ca mujj ca am a kabbidi enquête bi ñu xibaar ne PDS ba léegi dàqagul du mooy élection présidentielle yi ñu jëm Pape Sayer Gueye bokk ci comité directeur bu PDS ay kàddoom ci enquête xam le ne duñu jàppale mukk njiitu réew mi Macky Sall duñ ko may doole goo xamante ne mun naa faluwaat ci bopp réew mi Moussa Diaw di jàngalekat gëstukat la ci wàllu politique xam le ne doxalinu PDS saay bu sottee maanaam du mooy élection présidentielle yi ñu jëm saay bu ko Abdoulaye Wade ak ay ñoñam defee mun na doon seen xaru ci géew politique yéen a kabbidi 24 heures di ñu xibaar ne kujeeg politique bi seen ndaw ña ngay ne pare nañu ngir ba seen ci mbeddu ndakaaru ne ko dalee ajuma daañu yëngu-yëngal ci ndakaaru amal itamit doxum ñaxtu ca Rufisque bu dee géejawaay àllarba ji ñu jëm la fas yéene woon seen bopp ci mbedd ya Toussaint Manga ay kàddoom ci biir yéene bi ne ko dalee ëllëg ci ajuma ji ba ñaar fukki fan ak ñeenti weeru février gi ñu jëm saay su daañu wàcc ci mbedd mi daañu amal yëngu-yëngal ngir jàmmarlook politique bi wàcc ci mbedd mi lañ nar ëllëg ak jàmm ci ajuma ji lañ ko fas yéene door Toussaint Manga ay kàddoom ci biir yéene kaa jot naa ñaawlu tekk tekkaarak yaafus gi ay kàngamu opposition bi wone maanaam ñi seq C25 Toussaint Manga ne ana lu tax mënuñoo ci mbedd mi nee na salon yi dakk nañu génn ci seen auto te wàccandook ñoom ci mbedd mi Le Quotidien ñu xamal ne bile ku jëg nas na pexem ba noppi fas yéene naa salfaañe campagne yu njiitu yane mangog denn ya jóg na li tàmbalee saxaar neexagul geeg bi jax na ci jamono ji fa ñuy jaar ngir amal seen doxum ñaxtu Toussaint Mangane duñ ci xaar préfet duñ ci xaar benn dogal ne neex naqari daañu wàcce ci mbedd mi daañ ko amal ci Ndakaaru amal ko ci Rufisque ak Saint-Louis bu dee ndawu xalifis yañu teg loxo ñii di ay jigéenu taxawu Sénégal ne pare nañu ngir xeex maanaam soobu ci géew politique bi vox populi ne mangog nguur geeg kujéeg politique bi mujjee nañu pare ne fitna maanaam kenn ku ne ci ñoom dànkaafu nga sa morom yéene kaab ñu xamal ne waa APR nañu ba noppi bu ñu sukkandikoo ci Mame Mbaye Niang jot recruter maanaam jot nañoo dajale ndaw yu takku yu ànd ak seen doole ya ñu duppee les marrons feu lépp ngir mun a soobu ci campagne électorale Toussaint Manga bu PDS ne pare nañu ngir jaamarloog ñoom Basirou Samb di kenn ci jegeñaale Khalifa Sall xam le ne fu ñu leen woo daañu wuyu xel xalaatul ñu deltu ginnaaw ne bu dee see jaamarloo pare nañ ci Vox Populi ne bu Omar Faye bu leeral askan wi jot na fagaru ba noppi ndax jot na taxawal lu tolloog juróomi téeméeri Baay Faal ngir mun a jàkkaarloog ay milisu APR Vox Populi ne bile élection présidentielle bu ñu deful ndànk nar naa tàng jër ndakaaru foo tourné sa bët tegu ci takk der ña nga keetaru ba dëgër ngir watu kaaraange askan wi ay ndawu C25 maanaam bi ne li ni mel munta tax ñu deltu ginnaaw ne daañu amal ëllëg ak jàmm ci àjjuma ji seen doxum ñaxtu Toussaint Manga ak ñamu àndal ne duñu seetaan benn yoon nguuruk Macky dina sa xalak di salfaañe démocratie Sénégal yéen a di source année jafe-jafe yi ni mel tax na ba nguur gi waajal boppam daal dina yokk li takk der yi nar a taxaw ci ndakaaru a ministère retraite ñoom ñëpp wolu nañ leen ngir ñu mun a soobu ci renseignement politique yéen a kabiri source ñu xibaar ne ay ndawu C25 maanaam politique bi xaaratuñu benn yoon ñu xàllal leen yoon jaar leen fi wala fa ca des Toussaint Mangak ñamu àndal ne xel xalaatul ñu déglu ne négociation jeex na neex na daañu wàcc ci mbedd mi ne daañu raag ak Ali Jacques Boor Ndiaye yéen a kabiri ay wax ay kàddoom ci biir yéen a kabi seen doxalin Samb jot naa woo njiitu réew mi Macky ngir mu def ni Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf maanaam woote waxtaan ngir jàmm na ñooy yéen kabidi las ne jàmm ju ñoŋ ci élection présidentielle ñu jëm doon na lu yitteel Seydi Gassama njiital Amnesty International ay kàddoom ci biir yéene kaay bi ma ngay dànkaafu woy politique yi ne képp koo xamante ne yée nga fitna ci réew mi ba bakkan rot ci réew mi jàppal ne ëllëg dañ la kalaame ci yoon Seydi Gassama ne du ñu seetaan benn yoon ñii di woy politique yi di taal mi wala di toroxal askan wi réew mi quotidien daal di am taxaw seetlu ci njiitu réew mi Macky Sall na la ju te yegg yéenekaay bi gis ne faluwaat ci bopp réew mi maanaam deuxième mandat doon lu tere nelaw njiitu mi Macky ci waxtu wi le yéenekaay bi di Les Échos ju xibaar ne réeroo amul ñàkk waxtaan a am Idrissa Seck ak Thierno Bocoum waxtaan nañu diisoo nañu Thierno Bocoum ne pare na delluwaat ci Idrissa Seck gàmmu gis ne mooy candidat gi wér mooy ki mun a soowe Sénégal mooy ki mun a suqali réew mi ëllëg ba tax Thierno Bocoum jox loxo Idrissa Seck yéenekaay bi di nañ leen a yokkal seen grade ci nguur gi rawatina ca ministère gi yor wàllu koom-koom yéen a cabinet ana lu tax Ousmane Sonko ba a cabinet ana lu singili kii di Mamadou Mamour ba kii di Ba di ndey mbilli gi yéen a cabinet ne gannaaw buñ ko tuumaale ne dafa luubal alalu askan wi moom Mamadou Mamour Diallo ma ngay leeral ci biir yéen a kaay la yor Mamour Diallo xamal askan wi ne kii di Ousmane Sonko dara yitteelu ko lu dul koppar ana lu yitteel mouvement aar suñu moomeel bu ñu sukkandikoo ci biir yéen a bi di l'évidence yéen a bi ne jot nañu amal doxum ñaxtu ci mbeddu mbir kilaan lépp ngir mettitlu ni campagne gerte gi doxee ak jafe-jafe yi béykat di dund yéen a bi di l'évidence ne ñeneen ñuy dund jafe-jafe bokk na ci mool yi lim bu ci ñoom seen bakkan des na ci géej gi rawatina ca ndar géej yéen a bi di sarxëy sampa plage ne diggante Chelsea ak Tottenham match am tey ji bu 19h45 jotee ci ñoom ñaar ana kan mooy fekki City ci final Sénégal yéene kaa bi di suñu lamb ne Balla Diouf daal dina sulli ay mbot yu bëri ca écurie Fass maanaam Fass tas na ba pare Balla Diouf na bu ñu deful ndànk écurie gi ni mel dootu fi am moom Balla Diouf ay kàddoom ci biir yéene kaa bi daal dina sàkku ci Tafa yi mu ba écurie Fass nee na muy doxale ci googule écurie tax na mbër yu bëri tàmbale woon ginnaaw Fass ku mel ni Papa Sow daanaka jóge na ca Fass may laaj ana lan moo nar a doon ëllëgu écurie Fass jërëjëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant lay gërëm di sant di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yëmb Modou Fall moo fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba kon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askan ak sunu gaal